Ansoumana Dione maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Ansoumana jon nga nekk njiitu ASAM di association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux euh, fan yi gis nañ ni njiitu réew Sénégal daf la dalal ca pale ba est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci audience bi lan ngeen fa wax te tamit naka nga décroché audience bi parce que ça fait des années nga bëggoon ko amoo ko tey ji nga am ko. waaw euh, ñu ngi sant yàlla euh, di julli si yonent bi lii ñuy boobu ba léegi ay at ñu ngi doon daw pour am audience ak président Macky Sall man dem naa sax ba benn jamono ma waxoon ne sàkkootuma ko laajutuma ko waaye euh, bi ñu waxee ne deux mille bi année sociale la ñu gis ne euh, dana jaadu pour que ñu amee feebar xel ñu toppatoo leen euh, samedi laa woote présidence ma ne dama bëgg a gisante ak réew mi pour ñu waxtaane mbir ñu ñu amee feebar xel boole ci fan yooyu nag wax dëgg yàlla wax naa ci lu bari ci tolluwaayu réew mi. ci tolluwaay yi rawatina ñu am feebaru xel ci talaata ji nag ci laaj ma woo ne ma audience bi tey la. Euh, ci bu ñeenti waxtu jotee wax dëgg fi yàlla jour boobu sax dama dem ci teer bi fekk teer bi dafa gratuit nga gis ne euh, teer bi amul fay nga gis ne sax euh, lu jot yomb loolu yëpp xéwal la te nga xam ne kon bés boobu muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier bi ñu nekk nii laata juróom laata juróom waxtu di jot ci la président Macky Sall dalal ñu waxtaan ak lépp loo xam ne nii aajowoon na si ñu amee feebaru xel rawatina ci ñi nekk ci mbedd mi waxtaan yi nag. Mhm. Euh, ñi ame feebaru xel dong la woon. leneen raxu si. Mhm. dara bokku ci ñi amee feebaru xel kese la ñu waxtaanee ba ma fi génnee. loolu daal ngeen waxtaanee euh, ci waxtaan woo en su am beneen euh, information bu génn ne Macky Sall daf la alloué budget wu cinq cent millions euh, de francs CFA ci at mu jot pour la prise en charge des malades mentaux xaalis boobu naka nga ko war a utiliser exactement naka ngay def tamit ba daal di ciy jot. mu nekk lu solo ndaxte ci toogaay bi. Euh, bi ma ko expliqué centre colloque boobu nga xam ne réew mi FM yàgg nañu see euh, euh, réew mi FM en tout cas yàgg nañu see gunge comme la comme toute la presse sénégalaise waaye taxawaay réew mi FM bokk na si si ñu gën a ràññee président Macky Sall bi ñu waxtaanee ci problème ci problème santé bi bi mu comprendre mbir yi la woo ministre de la santé Marie Khemesse Ngom Ndiaye ne ko kër googu ci kaw la delloo ko ñoom Ansoumana ak seen kuréel gi jël bépp disposition signé benn arrêté boo xam te ni moom moo leen di delloo boobu lay kër mu ne ma moom président Macky Sall ñaata ngeen di soxla ci alal ñaata ngeen di soxla ci koppar pour mën a jàppale ñoom feebaru xel mën na ko ñaar la lu néew néew néew néew néew. daañu soxla ñetti téeméer million su baree ba bari daañu soxla juróomi téeméer million par at mu ne ko mani xemes te kuréel gii di asam danañ ko jàppale ci subvention waaye nag loolu buum la tiital buum la jaaxal ñun ñoo koy joxe ñun ñoo koy joxe ndaxte xam na budget ministère de la santé lim attan ak lim attanul moom président mag Sall am na euh, mën na euh, génne xaalis bu xaalis bu ñu toll te xaalis boobu bës buñ si jotee suñ kuréel gi moo koy gérer. ñun ñoo koy gérer parce que li ma ko wax leer na ñun li ñu soxla mooy yónnee ñu ay médecins ay infirmiers ay psychiatres ay médecins généralistes kuréel gi mooy gérer centre bi dafay nekk ci sunu kilifteef te ku ne xam ne na ku def ñaar fukki at ak ñett nga jël lépp jox ko sa réew jox ko ñu am feebaru xel loolu du juróomi téeméeri million moo lay tiital parce que ñun alal jaaxal lañu ñun lenn rek moo ñu yitteel mooy ñi amee feebaru xel ñu jóge ci mbedd mi te loolu pour que mu nekk. ñii am feebaru xel euh, ñu ci bëri si ñoom am nañ ay feebar ñi ay tuberculose ñii ay góom yoo xam ne nii ñii ay dam damm ñàkkul sax ñoo xam ni am nañu si ci seen biir loolu yëpp ay ay feebar yoo xam ni laata ñuy faj feebaru xel mi yooyu la njëkkee bu ñu foofu nag ñu ci wàllum feebaru xel mi garab yi euh, cher na seen ay yére léegi nag bu ñu génnee am na si ñoo xam te ni euh, ñu ngi si bedd mi seen métier fat fàttuwuñu ko daañu leen jàppale pour que soit bu dee mécanicien la ñu jël atelier mécanique ñu xool fu foo xam ni en tout cas dina la mën a jàppale bu fekkee ne ku am lu métier la ci biir centre Kaolack bi daa ñu fexe ba nga am fa métier boo xam te ni boo fa génnee di nga mënal sa bopp ndaxte léegi-léegi dangay jël nit nga jëlee ko ci mbenn mi yóbbu ko seen waa kër seen waa kër dañ lay jëppi parce que danan kii de indil nañu coono léegi nag loolu moo tax ñun bu ñu paree si malade bi dañuy fexe mu mënal boppam bu dee danañ commerce ñu fexe ba mu ba mu am loo xam ne nii dana ca mën a jaayi euh, maanaam daal dana mën a maanaam gan goo xam ne nii dafay indi teraanga gan googu dafay neex a fat dafay neex a dimbale biñ ci gis koo xam ne nii sax wax dëgg yàlla faj nañ ko ba noppi waaye amul kër gisul ay mbokkam te daa maana yàgg na ci mbedd ba xamatul xamatul ay mbokkam fan la ñu nekk parce que doo ko bàyyiwaat ci mbedd bi mais di nga mu am kër loolu yëpp ay mbir la yoo xam ni euh, yu solo la parce que nit nit il faut mu xam ne moom sénégalais la. place am ci société bi la ñi ñu bàyyi ci mbedd mi nii ay sénégalais lañu seen place mooy ci biir kër yi tey loolu pour que mu nekk il faut nga jàpp leen ba ñu xam ne njëkkate kat ñoom ay sénégalais lañ li may wax tout le temps yi sax ñoo xam te ni gis nañ xéewal yi yàlla defal ñooñu nekkoon ci mbedd mi di nga gis koo xam ne sax dina jéem a jàpp-jàppal boppam koo ku amee feebaru xel sol ay sagar pour ñu mën koo pour ñu pour ñu koo boole ci teraanga yooyu noonu ndaxte koo faj ba mu wér dimbale ko ba mu mun mënal boppam lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti buy génne dina yor benn budget wu cinq cent mille francs lu mu ndaw ndaw ndaw benn xaalis boo xam ni dina ci mën a jëfandikoo pour mun ko accompagner te it am na lu gën a neex mooy waxuma ko sànq ci nasaraan mooy danañ fexe ba euh, buy euh, maanaam bu ñu fajee benn promotion euh, ba ñu wér. Mm-hmm. danañ woote ñan ñoo bëgg pare ne ñan ñoo bëgg a parrainer ñi nga xam ne ni wér nañ day waaj a génn. pour que euh, nga gis ñoo xam ne am nañ alal am nañ bëgg nañ def ngir yàlla bëgg nañu dimbale ñu ne diw ñun paxe nañ ko benn société ñëw ne man de diw de euh, jël naa jël naa si ñaar jël naa si ñett bu ko defee ndimbal luy jógee si ñooñu day dem directement si ñi nga xam ne en tout cas wir nañu ñun daal li ñu yitteel mooy fii ay at fii juróomi at au maximum euh, ñi amee feebaru xel kenn du la gis fi ci mbedd mi loolu nag pour mu nekk xam nga ki amee feebaru xel garab bi. dina la dimbale waaye liggéey bi muy liggéey moo koy wéral dafa mel ni oto bu paan oto bi su paanee bu ko xale yi poussé ba mu tàkk chauffeur bi mooy góorgóorlu pour mu daw fii aussi garab yi ñoo lay ñooy pousse feebar kem feebu xel ba xelam ñëwaat léegi liggéey bi nag mooy tax mu gën a euh, yëg boppam xam ne moom ci askan bi la bokk donc liggéey bi c'est extrêmement important loolu mooy faj moo tax ci centre bi ñun bañ koy créer ñu fexoon ba ñu boole ci ay métiers yoo xam ne ay liggéey yoo xam te ni euh, ñi amee feebaru xel daañu leen ci former daa daañu leen ci jàngal ci gàttal daal alal boobu du dem ci poste ma sàmba du dem ci poste ma demba ci ñi amee feebaru xel lay dem xëy na nag euh, ña fay liggéey ñay jàppale ñay jàppale ñi am feebaru xel ña leen di toggal ña leen di baleel ña leen di accompagner ñoom ñëpp nag il faut ñu motiver leen sëgëm wax naa ko njiitu réew mi sëgëm ñiy liggéey ci mbalit mi sëgëm ñi nekk mbëbës di récupérer ay mbalit ñoom ñooy gis seen bopp ci mbal mi asatuma ak ñi nga xam ne ñooy ñëw volontaire pour que ñi amee feebu xel ñu jëlee ci mbedd mi mën leen a réinsérer ñooñu wax dëgg yàlla dina am euh, motivation boo xam ni dana leen defal ba ñu sawar ñoom tamit ci liggéey parce que du nekk liggéey bu yomb du nekk liggéey bu tuuti parce que koo xam ne léppam dafay consacré si ñi amee feebu xel pour que mu nekkaat nit comme ñun xam nga buñ ne nit moo nit la yàlla gën a fonk. ñun waroon nañoo am gàcce ba fii ñuy wax nii ci deux mille atum deux mille vingt trois ay nit nekk ci mbedd mi di lekk ci poubelle yi di dox ak ak seen yaramu neen di ñenn ñi góor jigéen di dox comme li leen seen yaay jure woon alors que ñun sénégalais ñu ngi fi léeg-léeg da ngay dégg ñu naan ana seen ay mbokk ñu nekk ci mbedd mi du ñu ay mbokk Ansoumana jot waaye man Ansoumana jàpp naa ne man may seen ay jur boobu wax naa ko président Macky Sall ak projet bii nii yow président Macky Sall yow yaay nekk baayu ñu amee feebaru xel nekk ci mbedd mi et loolu cër gënu ko rëy donc loolu moom la yàlla teg si bopp réew mi ñun dañ ñun ñun dañ koy liggéey rek waaye moom mooy njiitu ñu amee feebaru xel man Ansoumana man mooy njiitu asam nii laa ko ko waxee yow yaay njiitu ñu amee feebaru xel man njiitu kuréel gii la buñ tuddee en tout cas kii kii asam te ñëpp xam ko. voilà Ansu sa centre ba ca kaw Kaolack kañ lay commencé di dalal ñi am feebaru xel kañ lay tàmbale exactement. bu soobee yàlla bu ñu signé arrêté bi nga xam ne ni moo ñu koy jàlloo ñu ngi xaar arrêté bi arrêté bi tey jii ministre bi signé ko bu ñu ko signé euh, fii ak euh, ci biir mois de février ci début février liggéey bi dana tàmbale ndaxte ba fii ñuy wax ni centre baa ngi tëjee démb am na ñu fa dem tey tey ci suba am na ñu ma woo Kaolack. ne ma dañoo jël seen ay euh, seen ay nit yoo xam ne feebu xel indi nañ centre ba ba ñëwee fekk centre ba tëjee ñu ne ñu ne dañoo bëgg a faju ñu leen dem leen Fatick parce que fii euh, ubbeegul waaye ñun bés bu ñu ko ubbee kenn du ñu indil feebar kenn du ñu indil euh, sa malade ñun ñooy jëli malade ci mbedd mi parce que hôpital ba centre boobu ci Kaolack pour ñu nekk ci mbedd bi ñoo ko tax a jóg waaye ñi nga xam ne nii dañuy yor seen mbokk bëgg ko la fajal dañuy dem hôpital Fann wala hôpital Thiaroye moo tax nag daañu fexe ba ñu continuer plaidoyer bi pour que président Macky Sall fexe ba hôpitaux régionaux yëpp ñu am ay services yoo xam ne dañ fay fajee feeblu xel ci biir mois de février bi daal bëgg nañ liggéey bi tàmbale ndaxte ci biir mois de mars président Macky Sall nee na moom moo ñëw Kaolack président fa bëccëg yooyu nga xam ne ne moom la ñuy wax les journées francophones de schizophrénie nga xam ne réew yi làkk kàllaama tubaab ñooy màggal euh, feebar boobu ñuy wax schizophrénie te ñi ëpp ñu nekk ci mbedd mi feebaru schizophrénie boobu la ñu amee kon léegi balaa booba liggéey bi war na tambale te wax dëgg fa yàlla ñun ku ñu xam kuñ ku suñu euh, euh, expérience may nañu caabi ji buñ si jotee tey jii balaa ñuy wax semaine au ñaari semaine ñu commencé def liggéey bi parce que ñun lenn lañu saaku rek mooy état bi jox ñu ay médecins ay infirmiers ay psychiatres ay psychologues tout le reste nag ñun kuréel gi di ASSAMM ñun ñoo koy gérer ñoo koy yore te te te nit nit ki lu mu topp pendant ñaar fukki at ak ñett parce que gëm na loolu ñun xaalis yitteelu ñu doomu aadama bi yitteel te doomu aadama loo ko jëndee jar na ko. waaw Ansu est-ce que jàpp nga ni njiitu réew mi li mu wax dina ko def wala instruction yi mu jox euh, docteuresse Marie Khemesse Ndiaye est-ce que dina ko def concernant euh, kaw Assam ak samit moyens yi nga xam ni soxla ngeen ko fi ñu toll nii pour mën a euh, liggéey. ñun ca dëgg dëgg dëgg li ñuy rek mooy suñu ay caabi ñun même budget bi sax bu ko président d' joxewul ñun am na fu ñu koy jël lu ëpp sax loolu waaye nag jàpp nañ ne. président Macky Sall ak ni mu comprendre mbir mi jàpp nañ ne loolu mu wax dana ko def ndaxte njëriñam la ndaxte ku nekk nag bëgg nga am waa góor ku nekk bëgg nga am waa góor léegi nag ministre la santé moom li ñuy xaar ci moom mooy mu signé nu mu gën a gaawee parce que heure bi war na fekk mu signé këyit gi delloo ñu suñu yëf ñu ko yéexal nag waaye li ma la ma ko wax keroog ci sama ci sama gémmiñ ak noppam madame la ministre këyit signal kayit bi ci lu mu gën a gaawee parce que boo ko defulee ñun danañ jàmmallu ak yow te bëgguñu loolu parce que mënoo dem ba ci président de président ne jox ko euh, maanaam waxu kilifa jëfee la sant. Mhm. président Macky Sall wax na Omar Conseil boo euh, wax na Marie Khemesse Ngom Ndiaye joxal centre bi ñoom Ansoumana mënul lu dul mu def ko ten loolu ñu ngi koy xaar tey ci altine gi. bu altine tey gi bu weesoo ëllëg ci talaata bi sénégal yi daañu dégg te ku ne xam na góob ma rek ne danaa mën a jóge ci président Macky Sall ak xol bu sedd ma ñëw ministre Marie Khemesse Ngom Ndiaye bëgg a tàggal suma xol loolu mënul nekk nee na nañ ñu ko jox mu neex ko mu naqari ko daf ko war a joxe te ñun loolu ñuy xaar ci moom boo ko joxewul nag ñu jël suñu ay responsabilité jàmmaloo ak moom te loolu askan yëpp. def naa ne duñ ko nangu di di ko seetaan président jox ko ndigal na joxeel mbir mi mu ne du ko joxe. Ah, su boobaa su boobaa bu boobaa mën nañ ko topp ci wàllu yoon euh, ndax euh, def défiance en tout cas à l'autorité waaye gëmuma ne dana fekk gëm naa ne tey jii dégg dana ko si signé parce que déggoon naa ne ci biir euh, ci fan yi néew yi ni bind na arrêté bi signature rek en tout cas moom moom moo ci desoon. Euh, en su euh, peut-être laaj bu mujj. Euh, mhm. candidat nga pour deux deux mille vingt quatre si élection waaw wala déet parce que da sampoon sa léegi nag gise ngaa njiit njiitu réew mi est-ce que da dëggal ba léegi. sa candidature waaw wala déet. en su maanaam ba fii ñuy wax ni candidat la pour deux mille parce que élection deux mille vingt quatre la askan bi moo war a tànn kan moo ëpp yërmande ci moom kan moo ëpp yërmande ci moom xam nga wax naa njiit réew mi nee naa ko démb ànduma ak opposition ànduma ak yow. tey jii ma toog nii ànduma ak opposition ànduma ak yow suba ànduma ak opposition ànduma ak yow Assane mooy liggéey ñaame mooy liggéeyal ñaame faible xel Ansoumana Dione il reste candidat pour la présidentielle de 2024 loolu moom amul benn sikki sàkk voilà Ansoumana Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité ñoo leen di sant di leen gërëm euh, di leen jaajëfal nag yéen waa Rewmi FM ndaxte seen taxawaay si ñu amee faible xel Sénégal yëpp gis nañ ko fu nekk gu gu gunge ngeen ma du tey ngeen ma woo def ma invité de la rédaction yàgg ngeen ko def tey it kon tey bu ñu demee ba tey jii audience am ba président joxe ndigal ne nañu delloo suñu tante man Ansoumana Dione ci turu asam ci turu réew mi yëpp gërëm di jaajëfal la rajo Réew mi FM ci taxawaayam si ñu amee feebaru xel. voilà Ansoumana Dione kon ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am ñuy fàttali moom mooy euh, njiitu ASAM euh, di président bu ASAM association euh, sénégalaise pour le suivi et l' et l' assistance aux malades mentaux. ñu ngi leen di gërëm Ndeye